loi moo day engineer society ni ñu ko bëggee so suñu amul loi yu baax duñ dem fenn. dëkk bu serious foo ko dee xamee mooy nga dem seet seen budget fi nga dugal xaalis loolu moo easy results waaye ñun suñ budget ñu ne dañ bëgg a food self sufficiency for instance li war a dem agriculture agriculture mënuñoo am dara nit yi dañoo toog di complain ne agriculture ñu ngi am ay PhD holders ay jàngkat waaye mënuñoo ba léegi mënuñoo am lu ñu lekk mënuñoo produce dara lu ñoo lekk lu ko tax man ma ñi fa nekk budget bi laa blame waaye budget bi ñan ñoo ko decide